إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين gannaaw loolu mbokk jullit tey jii mboole mu xeli way jur yépp ñi ngi jëm ca la nga xam ni mooy ubbi teg lekkool boobu mbokk ngir suñu doom yi ñu xool naka lañuy fexe ba utal leen am njàng loolu nag nga la wayu jullit bokk na la la ciy dimbali nga xam doom mooy lan mbokk doom suñu borom da koo indi ngir mu nekk aw jiwu jiwu ci tool mooy la nga xam ne dañ koy ji yaakaar nag ay weer ca kanam nga ñëw góob ko doom it aw jiwu la yow yaa xam ci ban tool nga koy ji ak naka nga koy jiyee ci loolu ngay amee résultat ba ngay góobe kon doom yooyu mbokk jullit ba tey ñoom ñooy ña nga xam ne ñoo ñuy aw ëllëg ci si biir ñooy nar a continuer la nga xam ne doon nañ ko taxawee ci kaw suuf da doon loolee daa doon lu baax ak wala ab safaan doom yooyee mbokk jullit suñ borom nee na taarub adduna la borom bi nee na alal ji ak njaboot ji taaru adduna lañu waaye xam leen ni la nga xam ne mooy sax doon yu yiw moo gën ci sa boroom ci lépp luy mébét ca mbokk mi nga noonu doomu goog doon taar waaye taar boobu nekk fitna ngallaawaay fexeel sàkku ca sa ngërëmal boroom te xam ne la la cay jëlee la ngay jële ci ngërëmal yàlla ci sa doom kenn du ko méngaleeg leneen loo ca mën a am Mustafa noog ngërëmal yàlla mbokk doom ju baax mooy jubluwaayu jullit waaye bu dee dooma bàyyi ma yéeg ñëpp am nañ ay doom amma doom ju baax moom la jullit di mébét xaritu yàlla ba ibrahim alayhi salaam keroog ba mu koy ñaan doom daf ne ay waay yàlla yàlla nag ma may ci doom yu baax yi suñ borom yàlla béggee la ko ci as ngóor soo xam ni yàlla nee na ko lewet la mooy ismaila alayhi salaam mbokk loolee la ñuy gis zakariya alayhi salaam moom la doon waxit ay yàlla yàll nag ma may doom boo xam ni wajaaluhu rabbi radiya yàlla na doon doom boo xam ni doom bu ñuy gërëm la yàlla gërëm ko ay waajuram gërëm ko société bi gërëm ko loolee mbokk mooy jubluwaayu jullit suñu boroom moytu looñu wax ñu ci téeréem bu tedd bi ay doom yu bon yoo xam ni ñenn ña ñi nga cosaanoo ci nit ñu baax mbokk ñun ñëpp suñu bàyyi mooy yonent yàlla nuux suñu borom yàlla nattoo na ko mu am doom ju bon doom jooju xaw na koo alak ndax ba ko suñu borom ne danaa la musal yi ak sa njaboot ba nga xamee ni nii asamaan ngi gëq suuf di génnem ndoxam mu ne ay doom kaay yéeg ci gaal gi doom ji na ko hey man bàyyi sa gaal googu doyu ma damay dem ca montagne ya yàlla dogal benn vague ñëw doom ja lab yeneen ci yàlla nuux ak bëgg gi mu bëggoon doom mu ne ay yàlla sama doom ji ci sama njaboot la bokk ci yow la ngay digge dëgg la suñu borom ne ko ay yow nuux xamal ne doom jooju bokkoo ak moom te nga la waay xamal ne heure bu la yàlla nattoo doomu bu yéeféer xamal ne kon bokkatoo ak moom nuux lan la wax suñu borom ay yàlla laaj bii ma la laaj de illa taxfir lii wa tarxam nii akun min alxaasirin laaj naa lu ma xamul fekk borom bi na ko maa ngi lay moytuloo nga bokk ci jaahili mu ne ko soo ma jéggalul yërëm ma danaa doon ko perte ko alku loolu ba ñu ko suñu borom di nettali dafay jox leçon wayjur yi ay wayjur soo moytuwul sa doom dana la perteloo gannaaw ba nga defee sa ndigal ak sa diggante ak sa borom waaye bëgg gi nga bëgg doom seetaan ko ca la nga xam ne neexul yàlla nga gërëm ko bal baay yu bari dañuy jàppale seen doom sax ca la neexul yàlla te doon ca col yu bon ya ak ca relation yu bon ya ak ca liggéey yu bon ya mbokk suñu borom nee na nuux nee na borom bi soo ma jéggalul yërëma dinaa perte lu mel noonu it lañu borom bi di wax keroog yeneen ci yàlla Muusa ba ñu àndee xadir ñu dajeeg benn xale xadir dóor jaasi mu daanu Muusa ni ko lii nag mu ne ko kii doom ju bon la su continué woon màgg waajurum yee waajur yu baaxam yee da jaamu yàlla dana fexe ba génn leen ci jaamu yàlla loolu it ngallaawaay yow waajur nga bàyyi ko xel suñu borom mu ne yaa ayuha allazina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum faxzaruhum xam leen ne ci seen way dencante yi da doon jëkkër la wala soxna ak seen njaboot yi seeni noon ñi ngi ci moytu leen moytul ma bépp doom boo xam ne day tax nga gërëm lu yàlla xaraamal moytul ma bépp doom boo xam ne day tax nga jàppale ko ci lu yàlla xaraamal looloo tax ba mbokk islam bi mu ñëwee dafa sant ña nga xam ne ñooy waajur ñu taxaw seen njaboot ci yar leen ci seen wàllu ruux seen wàllu jukku ak seen wàllu yaram islam bëgg na xale bi ñu jaarale ko foo xam ni dana am yaram bu dëgër islam bañul sport waaye na doon sport boo xam ne du yàqu jukko comme li ñu yàlla nattoo fii ci unité 21 ci terrain basket bi ay xale yu jigéen ñu toll ne seen ndey ne futt futtaaral sol ay kilot jaxasoo xale yu góor yi di tëb di dal te mu leer ma la ci ëpp ay doomi julit ci këri julit lañ génne mbokk loolu musiba munta paase loolu fokk doomu aadama bi ñu jéem a góor-góor lu xam ne la gën lu ñuy defal njaboot gi mooy diine ji ñu yàlla tànnal te muy diine dëgg ñu fexe ba njaboot googee ñu suuxat leen ci mu war a nekk nag benn rôle boo xamee ne nii société yépp société société bi yépp ñoo ko bokk na doon ñi jiite réew mi la wala na doon way jur yi la ndax kat mbokk doom du doomu ay way juram doomu société bi la loolu tax société bi war a investir ci moom ngir ëllëg moom it mu investir ci génération yu topp ci ñoom loolee mbokk dañ cee war a bàyyi xel waaye nag fokk ñu xam ne nag ay yow way jur lii di état day dalay jàppale waaye responsabilité bi gën a màgg yow la ko yàlla dénk suñu borom mu ne fexe leen ba yéen ak seen njaboot ngeen mucc ci sawara sawara day bu ngeen fa ñëwee ay la koy alimenté mooy ay nit ak i xeer ak malaaka yu tar yoo xam ni lu yàlla santaan nañu def te duñ ko moy ci dara ki nga xam ne mooy ma aqal ibnu yasaar mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul kenn ku yàlla di sàmmloo aw ndénkaaneem ndénkaane boobu nga sàgge na ko lu dul xetu àddina du la xeeñ ay yow doomu aadama yàlla dénk na la alal dénk na la responsabilité dénk na la ay soxna waaye xamal ne dénkaane bi gën a rëy bi yàlla teg sa loxo mooy doom yi nga xam ne yàlla dala ko wërsëgal na doon loolu yow soxna si la wala borom kër gi ngalawaay bàyyil xel doom bi lu tax yàlla jox ma ko ay yéen mbokk jullit xam leen ne yàlla bi mu ñuy créé di créé suñu njaboot yàlla indi wuñu ci kaw suuf ngiree ñu yëkkati des immeubles gannaaw ba dawloo ay oto naawloo ay avion bànneexu xëy dee déedéet suñu borom dañoo indi ci kaw suuf ci benn jubluwaay boo xam ne amul beneen mooy wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li yaabudoon bind ma nit ñi ak jinne yi lu dul ñu jaamu ma looloo tax ba mbokk julit su objectif bi gën a rëy ci sa njaboot mooy ni may def ba njaboot gi doon ay jaamu yàlla amma wërsëg bi suñu borom mu ne maa ko gàddu maa gàddu wërsëg bi yow li ma la laaj fexeel ba njaboot gi doon ñoo xam ne dañuy jaamu yàlla na doon nag dañ leen defal formation ba ñu nekk des médecins yuy jaamu yàlla des mécaniciens yuy jaamu yàlla des informaticiens yuy jaamu yàlla loolee dafay doon luy dimbali waaye objectif bi gën a rëy bi nga war a am sa njaboot mooy naka lay def ba njaboot gi doon ay la nga xam ne mooy jaamu yàlla lan mooy jaamu yàlla mooy ndigal yi jóge ci yàlla ak ak yeneen ci yàlla di mboolem lu yàlla bëgg ci loo xam ne dañ ko war a gëm di ko war di wax di ko war di jëf loolu it moo tax ba jéego ba jëkk a rëy ba ba jë gën a jaadu yow bàyyi mooy fexeel sa doom yooyu nga jàngal leen mbokk jàng sunu yonent alayhi salaam nee na farata la ci góor ñi ak ci jigéen ñi ñëpp loolu moo tax wareef la ci xale yi ñu jàngal leen même bu doon te ne loolu rëcc na ci seenu ndaw du wees abadan loolee maa ngi ciy fàttali galawaay yéen jigéen ñi njàng mi ngeen doon def fii altine ak ajjuma avant corona bi di ñëw ñu tëj ko lu jege 6 mois daañ ko commencé bi sub tey bi muy commencé 4 heures jëm 7 heures yal na yàlla taxawu ña nga xam ne ñoo koy taxawu loolee ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee xale yi dañ leen war a jàngal jàngal leen àdduna jàngal leen diine donte ne priorité bi nag mooy li munta ñàkk mooy diine na am mbokk lu ne mën naa ñàkk ba mu des njàngum diine loolee ki nga xam ne da nga koo jàngal diine mbokk kii mooy ki nga sauvé amma parents yu bëri nag comprendre ñu dañoo jàppale xale bi texe mooy mu réussir ci wàllu àdduna ba nga am doom mu am 18 ans am bac ay góor li gën a garaaw nag mooy jigéen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nga sànni Amérique Canada Paris jox ko ay yéeféer ngiree ñoom ñu formel la ko xale yooyu dem vide ci seen diine en général quatre-vingt-dix-neuf pour cent la nga xam ne moom la ñuy mujjee mooy safaanoo ak ngërëmal yàlla jàll wa ala am naa xale bi bu dee dañoo jiital ci moom njàngum diine xale boobu day daal di xam ne àdduna lu mu mën a doon ay moyen la man kat war naa jàng ba nekk nangam waaye loolu ngiree ma sukkandiku ci ba mën a tedd mën a teral nit ñi waaye man mën naa jàppale ci jaamu yàlla waaye du dem mukk ba loolee itteel ko ba mu bàyyi jaamu yàlla topp liggéey ba wala topp njàng ma lu mu mën a doon loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee waajur bu nekk war a xool naka la yàlla gisee nu ñuy war a njab nu ñuy yore njaboot loolee ca alquran ak sunna ak doxalinu sahaaba ya ba ñun ñëpp suñu njaboot ànd doon njaboot goo xam ne nii moom la borom bi di tagg mooy kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéene xeet bi gën boo xam ne dañ koo génneel nit ñi lan moo waral loolu mooy yéen day da ngeen di diglu lu baax da ngeen di teru lu bon te yéen da ngeen a gëm yàlla mbokk njaboot gi dañ leen a war a jàngal lu baax xamal leen lu bon ñaax leen ñoom ñuy diglu lu baax di teru lu bon àdduna ay force yuy xëccante rek la boo jéemul xëcc ñu xëcc la dëgg ga nga nekk boo ca taxawul di ca woote borom neen dana dëgg ci neenam moom woola ca loolu moo tax xale yi ñu war leen a jàngal suñu borom yàlla jox ñu misaal benn waa ju baaxe ngi di luqmaan xakim ba yàlla tagg ne xakim la toog nag doomam ne ko ay sama doom xamal ne da ngaa war a jaamu yàlla loo def ci kaw suuf daa néew wala daa bari pay ga mi ngi lay xaar ci kanamu borom bi jàll waala xoolal xale bi nga xam ni màggaale ne lii xam ne résultat final bi nekkul ci àdduna résultat bi mooy keroog biñ may déclaré dama taxawal ci kanamu borom bi loo def baax nag bon na foofu ngay fekk résultat bi ay sama doom taxawalul julli fonkal julli mooy la gën a màgg li waajur di war a encadrer njabootam fexe leen ba duñu manqué julli waaye jiitu jàngal leen naka la ñuy julli ay sama doom ngalawaay bul nekk di dox ci kaw suuf di rëy rëylu bul nekk di xeet doomu aadama yi na nga doon ko dal ci sa dox digg doomu ca fan ngay dem ak foo dul dem lii mbokk da ngay gis ne ay njàngale la yoo xam ne ci alquranul karim la nekk noonu la ko yonente bi alayhi salaam doon jàngale ndaw yi sahaaba ya ba ñoom ñëpp ba nga xamee ne ni màgg nañu ñoo nekkoon génération bu gën ci kaw suuf yonente bi alayhi salaam moo ko wax nee na génération bi gën mooy sama génération ba ca gënaat mooy bi topp ci moom lu waral mooy génération ba gën ñoo leen yar ba ca gënaat mooy ba topp ci ñoom moom la ñuy wax trois génération yooyu nga xam ne amuñu lu leen rax lan moo tax ñu gën mooy génération yi ya leen jiitu ñoo leen yaroon noonu la àdduna di delloo gannaaw ba bépp société boo mën a gis ña ca gannaaw ñoo leen yiis yéen ñépp yéen a ngi gis loo xam ne wallahi sunu maam yi ku leen ko waxoon ak leen di jaaxal ñu ngi noonu pour gisoon benn xale bu jigéen sol pantalon di dox ci mbedd mi déli bu graw la woon tey nag xale bu jigéen sol culotte di wangi wangi ça passe inaperçu nit ñi jàpp nañu c'est très normal ñii nga xam ne ñoom mel nii seeni doom ñoom lu ñuy mel seeni sët lu ñuy mel loolee nag mbokk bala ñu caa yegg ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu kenn talal kattanam xam fan lay jaare ak njabootam bokk na yow baay ak yaay la gën a am solo ci sa njaboot xoolal ma kan lay àndal xoolal ma fan lay dem àndandoo bu baax mooy teete sa njaboot yóbbu ko fu baax dëgëral ko ci lu baax àndandoo bu bon ñuy dévier sa njaboot dugal leen ci lu bon doolal leen ci lu bon gannaaw ba xoolal ndaje yi ñuy daje daje yi bari yoo xam ne nii yi gën a xumb yi ñu def suñu réew mi kafe gaa ngi nii jànq jaa ngi nii tëgg baa ngi nii fecc baa ngi nii ñu détourné pas-pasu xale yi génne leen ci yàlla gëmloo leen ay xurafa sa doom mu dem ca baal ba sax ak ca night club ba ngal na waay moo gën nga bàyyi sa doom di ànd ak ñooñu di yàq pas-pasam li gën a rëy lu doomu aadama am mooy pas-pas soo sàgginee ba sa doom ñu yàq pas-pasam ñàkk nga ko àdduna ñàkk nga ko àllaaxira lii mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax loolu nag dañ ciy téel a jóg dañ ciy téel a jóg xale bi dépp mu nekk ndaw xoolal ay waxam heure boo ko déggee muy wax waxi shirk teel koo jubbanti heure boo ko gisee muy ànd ak ñu bon di dem place yu bon teel koo jubbanti loolee mooy la nga xam ne mooy li gën a rëy service bi gën a rëy bi nga koy defal su ko defee yow bàyyi nga bàyyi loolu xel booleeg nag foo toll di ñaan lañ ubbee woon xutba bi mooy ñaan lañ koy tëjee it mooy ñaan suñu borom nee na ibaadu rahmaan yi mooy ña nga xam ne lazina yaquluuna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurata ayunin wa jaalna lil muttaqina imama suñu borom nee na sama jaam yi nga xam ne ñoom laa jaamoo nangul leen ñoom day fi ñu mën a toll dañ naan ay yàlla yàlla nag ñu wërsëgal suñu xol sedd ci suñu way dencente yi mooy jëkkër wala soxna waaye suñu xol sedd ci suñu njaboot mbokk lan mooy saral waajur xolam ci njabootam mooy bi nga gisee sa doom bu jigéen ma nga muuru na ko lislaam sante ba nga gisee sa doom bu góor ma nga mel melokaan ba yàlla bëgg kenn du ko jiitu ca jàkka ja foo ko gis ma ngay jàng alquran mbokk lii mooy saral xolub julit looloo tax ba kenn ci borom xam-xam yi benn jeune ñëw ne na ko waaw man day sama baay lan laay ko mën a defal li gën a lu ma ko mën a defal mu ne ko li gën a rëy li nga ko mën a defal mooy fexeel doon doom ju baax rek doom ju baax mbokk jullit ñeel jullit bu xam diineem loolu mooy li gën a rëy lu doomu aadama di yaakaar ci doomam wallahi ministre bale motar yi war muy sànq julli di jaxasoog jigéen ñi nga gis sa doom boo xam ne ni manœuvre la waaye mi ngi toog ci jaamu yàlla ki xam diine xam adduna xam alaxira day gis na doom bi moo ko gënal junni doom ca ministre ya gouverneur ya loolee kon ñu koy ñaan yàlla fuñ mën a toll waaye nag objectif bi gën a rëy mooy waja'alna lil muttaqina imama ay yàlla ñu nag suñu njaboot yàlla nag ñu def ñuy royukaay yi ñu ragal yàlla képp ku bëgg a jàll bëgg a jaamu yàlla xool ci ñun képp ku bëgg doomam baax mu ne ko xanaa gisoo doomu diw lii mbokk mooy la gën a mag loo xam ne ku nekk ci ñun gannaaw ba mu defee effort yi ñu jot a wax war na nag fu mu toll di ko ñaan yàlla jalla wa ala yàlla yàlla baaxal ñu baaxal suñu njaboot yàlla na yàlla may ñu suñu xol sedd ci ñoom àdduna suñu xol sedd ci ñoom àllaaxira yàlla yàlla dox suñu digganteeg suñu njabootee képp ku yàq seen pas-pas di yàq seen diine yàlla na yàlla may ñu teraanga àdduna may ñu teraanga àllaaxira boole ñu ci ñi nga xam ne ñoo seen njaboot dañ leen di yóbbu ci àjjana firdaws yi gën a kawe allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaba annar rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين